xadr màkka la ci saa mu nuzuul bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko nettali benn waaye ca bani israil boo xam ne gàddu na ay ngànnaayam jihaad lu toll ak juróom-ñett fukki wala junni weer kon lu juróom-ñett fukki at yu teg bañ ko waxee lim am ci yiw yonent bi ne ay yiw woo de wax dëgg yàlla yéene woon naa ko sama xeet lool lool ak seen dund yu gàtt yi seen fan yu gàtt yi ah am jëf ju doy noonu aka neexoon yàlla jagleel ma mbir mu moo xam ne bu ñu ko defee rek mën a am loolu ba ñu waxee loolu rek saa borom ne jox naa la laylatul xadr laylatul xadr nag yeneen bi xamoon na ko waaye nag yàlla def ko ko nëbbuloo woon ndax nee na benn bis génn naa ñëw di leen ka xamal si ci jàkka ji ñëw ba ci yoon wi fekk fa ñaari gaay yu jàppante liñ naan weewu gar wu joggi ci weewu jinaab lay doon léeg-léeg nga ñëw fas yéene lijjanti sa kër ay problème ñëw fekk problème bu gën a rëy ba nga fas yéene lijjanti ba nga doon lijjanti da nga koy fàtte ngir problème bu rëy bi dal ci sa kaw mm. yéen bi nag loolu ko ci dal mm. mu ne ñëwoon naa di leen ko wax waaye gaa yi doon jàppante mm. moo tax tabaarakallaahu yàlla fàttalewu ma ko waaye nag mun naa leen jox critères yoo xam ne su ngeen ci jàppee ah bu ngeen góorgóorloo mën moom mooy la na ko sàkku ci fukki fan yu mujj yi suuf si ci fan yu tool yi day jël ay affaire di ko ne bu ci biir mbir bëgg ñu fonk yëpp leetal xale rek ànd bu ci biir weeru koor ndax dafa am ñu ne ci biir weeru koor wi sax la nekk duy toxalu benn yoon am ñu ne déedéet dañuy toxalu ci lu dul weeru koor dana ciy nekk am ñoo xam ne jàppuñu ne ci weeru koor kese lay nekk de waaye ñenn ci mag ñi ñoom dañ naan la bu weeru koor départ rek départ ca guddi gu jot nga jàng ñette xadri rek yéene ko laylatul xadr ak allahuma innaka afun karim tuhibbul afa faafu anni su ko defee nga jël ci ab lim daa dajeeg moom balaa koor gee jeex ba koor gi jeex donte fukk ak yoon ak benn nga koy wax jàppal lool rek yow nga xool jàppal lool rek soo ko waxee rek daa dajeeg moom Abdou Aziz Dabakh ci libris ba nag nee na moom bu tëddoon bu faatu woon ba fënax faatu bañ fàtte ko fu ñu ko fa fekkee lay laytul xadar gën guddi la mu wax ko nee na kon suñ ne yéen bi xamu ko loolu dañuy kii noonu rek pour bëgg ñu góorgóorlu ndax bu ko leeraloon day mel ni comme salaatu faay faat gii nga dégg gars yi di ci tappalee nga xam ne kenn xamul salaatu lan la nit ñi nag bëgg nañ ñu kaa gëm loolu waaye li ko déggee lax ba keroog nga yàgg doo ko fa gis mukk jàngale nañ julli faat noo koy fayee même ba boo demee ba xamuloo julli yi ñu doy nee nañ jullil ba nga yaakaar ne mat na bu fekkee mënoo fay lépp nga jégalu yàlla li ci des waaye indi luñ la fi génn julli naan aljuma ju mujj lan koy def téere hadis yu wér yi itam nga xam ne ci ay buxaari yo muslim ak téere yu wér yëpp doo ko fa gis kon jàngale nañ julli gu faat nan lañu koy fayee jàngale mag ñi itam Sidi Hadj Malick li mu jàngale Cheikh Sidi Ahmad Tidiane Chérif doo ko fa gis kon loolu mën nay teey la ma gën a gëm nag mooy yahud yi ñoo ko def pour bëgg a tardel jullit ñi bëgg nit ñi di sàggan di sàggan seen diggante borom di def ak mooy yàlla di sàggane julli ba bis booba ñu ne dañuy fay lépp loo xam ne rawoon na leen ci at mi loolu mën nay bàyyi xel de doo dem ci téere yi wér yi fu ba gis ko fu muy taxawaalu duñ ko sàngaam jëme ca kon loolu moom mën nay taxawaalu te waaw waaw salaat moom yenent bi ba mu koy jàngal la abdu abbas ibn mutalib daf na teem a xamal la julli goo xam ne lépp bépp njuumte boo defoon kooku moom du julli kese du julli kese de waaw bokkut ak julli fay faal kooku def ne ko bépp njuumte boo defoon rek yàlla mënu la kaa jéggal soo ko mënee def bis bu set baax na soo ko mënulee bis bu set nga koy def semaine aljuma ba aljuma yaa xam boo ko mënulee bis ah, semaine ba semaine weer wu ne soo ko mënulee ak mu ne nga ko ciy def benn yoon soo ko mënulee fexeel ba def ko benn yoon ci sa dund ngir bépp njuumte yàlla jéggal la ko kooku di julli kese fay faat moom nañ ko expliqué julli kese la am ak soxla kon bële moo gën a yaatu te boobu it yeneen bi waxu affaire julli njuumte rek la wax yeneen bi gisuñ fu mu taxawalee nit ñi ne day day def fay faat saxaaba itam ñun gisuñ ci benn téere fu ñu daan woote nii dañuy def fay faat mag ñi itam Seydi Hadj Malick gisuma ko Cheikh Seydi Ahmad Tidiane Serigne ma ko kon nit ñi loolu nañ ciy bàyyi xel bu baax a baax ñu bàyyi xel ba tey salaatu bi xanaa ñu jàdd foofu sax comme buntu boobu xas na ubbeeku ci masabu Malick nag ñoom soo demee ci téere bële ñoom soo koy julli day daw julusul istiraax bi masabu Malik soo kabaree avant ngay jàng fatiha ak saar wi ngay jàng danga nga dawal fukki tasbiixaat door di indi fatiha saar soo indee fatiha ak saar def tasbiixaat yi fukk ak juróom rukon fukk siggi fukk sujjóot fukk siggi ca sujjóot ba sukk sujjóotaat fukk nga siggi ca sujjóot ba waroon ko faa def defal nga ko ba nga kabaree ba pare waaw dootoo toog ñoom dañuy daw toogaay boobu terewul nag ah boo gisee kuy def ne le ba tey bu ci sikk waaw loolu it gisees na ko ci téere yi ci masa Malik ñu indee ko noonu pour daw julu sali siraax boobu waaw kay indi fukk yi ba mu jeex waaw kay waaw def quinze doo di continuer julli gi boo ne ba fa ñaareelu sujjuut nag pour nga war a toog defaat ko doo toog defaat ko da ngay jug direct rek loolu gisees na ko ay dégg nga kon yàlla day jël ay mbir nëbb ko ci biir ay mbir ñeenti rakaa la waaw bu fekkee bëccëg nga koy julli mën nga ko jokkale mu bañ am sëlmal bu la neexee bu fekkee guddi nag la nga jigéen mooy nga sëlmal ko waaw julli ñaar sëlmal julli ñaari bu fekkee bëccëg bu neexee nga jokkale ko man kay xaw ma ko doon de gis naa xadis ba de waaye man de gis ma ko téere te xadis ba sax ñu ma kaa bindal ni ci kayit indil ma ko de téere yu wér yi jàngale fay faat yëpp ci xadis yi yént bi jàngale gisoo doo ko fa gis moo tax daal mat nay tey man man daal ku may laaj fay faat du ma la wax noonu la ñuy fayee faat man la ma jàngi téere fikk yii mag ñi jàngale ko mu wér tabaarakallaahu loolu laa lay wax man ndax loolu day yombal nit ñi bunt mooy yàlla waaw te mag ñi nag wala téere yi wala yenent bi jàngalu fi woon nit ñi ni ñuy mooy yàlla bunt mooy yàlla da ko daan tëj toujours kon dafa jël guddi googu nabb ko ci biir guddi pour nga fonk guddi yëpp dafa jël waxtu ijaaba nëbbu ko ci bisu jumaa pour nga bis bi yëpp nga mën ci ñaan hmm. salaatul wusta it noonu la ko nëbbee ci biir julli hmm. pour nga garder julli yëpp lismu laa laasam bi gars yëpp yi wër moom it la ko nëbbee ci biir turam yi nit yàllaam it la nëbbee ci biir nit yi waaw ba soo moytul rek gaañu kon yàlla moo jël yooyu def ko ci biir yooyu waaye daal la gën lëng critères yi nga xam ne gannaaw yenent bi sahaaba yi joxe nañ ko fi mooy nag laylatul qadr la gën lëng te ñaar fukki fan ak juróom-ñaar la nekk nag loolu mooy li gën lëng moo tax ma ngi daan jàpp foofu bismillahi rahmaani rahim innaa nun yàlla anzalnaahu wàccee nañ ko lu ñu wàcce waxu ko siiw gaa tax waxu ko ndax damir toujours danaan am ci lu koy dellu day dellu ci la ko mujj fii gisoo fi lu mu dellu dafa jekki jekki ne wàcce nañ ko lu ñu wàcce te waxul damir toujours soo koy tudd dafay am fooy looy tudd ba pare damir ji mën dellu ci loola fii nag tudd lenn ci la dell amul benn ismu zahir bu ko fi jiitu bu mën dellu foofu innaa nun yàlla anzalnaahu wàccee nañ ko màggaayu mbir ma ak rëyaay ba ak fooraay ba ak nit ñi xam ngu ñu ko xam moo tax mu ne innaa anzalnaahu kon jërul jërul wax li muy dellu ndax ñëpp xam nañ alquran la hmm. ñoo ko wàccee fii la qadr ci guddi gu am daraja gu màgg di guddi dogalu mbir yi nga xam ne dossier yëpp yii ci laay jël jox ko jibril yii ci mikaayilu yii israfil yii azrailu pour ñu war ko doxal ci mbindeef yi hmm. ñii am alal nañu am alal ñii faatu nañu faatu ñii feebar nañu feebar ñii wér nañu wér lépp ci guddi gi lay xew hmm. wa ma adraka moo la xamal hmm. maa laylatul xadr lan moo laylatul xadr mu nekk laylatul xadr laylatul xadr guddi dogal gu tedd gu màgg googu xayrun moo gën fuuf min alfi shahrin ci junni weer yoo xam ne laylatul xadr nekku ci nee na guddi googu tanazzalu dana wàcc ca peelu almalaikatu malaayka yi lii maam Saasili boo xoolee foofu dana la wax ne moom laylatul xadr moom bu koor gi nekkee bisu dimanche day nekk ñaar fukki fan ak juróom-ñeent dégg nga ko mooy comme nim mbokk murid yi def bu nekkee bu nekkee bisu altine ñaar fukki fan ak benn la euh. bu nekkee bisu talaata mm. ñaar fukk ak juróom ñaar la dégg nga de mm. bu fekkee dafa nekk bisu àllarba mm. fukki fan ak juróom-ñeent bu fekkee dafa nekk bisu alxames ñaar fukk ak juróom bu fekkee dafa nekk bisu aljuma fukki fan ba tey ak juróom-ñaar lay doon bu fekkee dafa nekk bisu samedi nag ñaar fukki fan ak ñett la mu tënk ko ci wayam woowu waaye yooyu nga xool ci suuf moom la dafay junj waaye yàlla ne li am te nazal dana wàcc guddi ga al malaayikatu malaayika yi wa ruuhu ak ruuh mooy jibril ñenn ñi ne moom la ñenn ñi ne benn malaayika la waaye mu ci doon daal day nekk atful qas ala lam da de fiyaa ci guddi ga daañu wàcc ñoom malaayika yi bi izni rabbihim ci seen santaane borom mooy ndigalu borom daañu fa wàcce min kulli amrin ci bépp mbir bépp dogal rek ak lay xew ci at maag may ñëw ak yëpp daañu ko ci leeral guddi ga itam salaamun jàmm la hiya moom guddi ga yëpp yëpp yëpp salaamun jàmm jur rëy kon jar na dacca guddi gay pay nekk jàmm mm. xataa mat laay dem ba fenk mm. alfajar mm. xataa mat laay alfajar dem ba fajar fenk daal mooy dem ba fajar xar malaayka yi door di yéegaat pour dem saar woowu noonu la day mooy xadr boo xoolee téere yi nag gën nañ ci guddal lool indi ay juróom ñaara dégg de dégg nga ma bayi na madani la wàcc juróom-ñetti aaya di juróom-ñeent fukki baat ak euh, ñeent di ñetti téeméeri xaraf ak juróom-ñeent kon dana laal tuuti ci alaxkaam ashar'iyya bismillahi rahmaani rahim lam yakun nekkul alladina gaa yi nga xam ne kafaru weddi nañu min ahlil kitaabi laala moom ko téere yi lañu wal musrikiin ak ñi bokkaale yàlla nekkuñu mun fakkiina di dañ dañuñ di nekk ci la ñu nekkoon mun fakkiina di dañuñu di dañ di nekk ci la nekkoon mooy seen bokkaale yàlla ga ak seen wedd yàlla ga dañuñ di ci ne dañuñ di ci ne dañuñ di ci ne xataa taatihum dem ba ñëwal leen albayinatu layu leer naññ te mooy téere bu leer naññ ak yenent bu leer naññ rasulun ab ndaw boo xam ne min allaay bopp tukkee ne ci yàlla yenent boobu yatlu dafa jàng suxufan téere mutahara bu ñu laabal ci ay caaxaan ak niin alquran laa yaatihu lbatil min bani wala min xalfi tanzil min xakimin xamid fiyaa nekk na ca téere booba kutubun ay atte xayma yu jub kon lan moo leen waree tere nangu wa ma tafarraqa tekkaliko wuñ ñoom ko téere alladina gaa yi nga xam ne utul kitaaba joxef ne leen téere illa min baadi ma jaatum lu dul gannaaw ba mu leen ñëwalee albayinatu la yu leer nañ ñoom daal ñi ngay werante ak werante lu dul ba leen Seydina Muhammad dikkalee bëgg daraja ak bëgg kilifteef ñu yaakaar ne bu ñu waxee mbir Seydina Muhammad day tax seen mbir wàññeeku wala kenn dutu leen toppati moo tax nag mënuñu ko wax waaye xam nañu mooy waa ji wa maa umiru santeefu leen ca tawraat ak injil ak alquran mii santuñ fa nit ñi illa li yaabudullaha lu dul ñu wéetal yàlla jaamu ko waaye jaamu ga dafa am nu ko bëggee de muxlisiina mbir moom ñi way sellal lawu ñeel ko ad diina diine jii ñu sellal ko lépp di yàlla kese xunafa mbir moom ñi way jub bàyyi mboolem diine yu dëng yi jëm ci diine ji jub wa yaqimu salaa ñuy taxawal julli wa yuutu zaka ñuy joxe asaka wa dalika loolu diinul qayyim mooy diine ji jub ji de di sellal di taxawal julli di joxe asaka soo ko amee na ku ci nekk yaa nga ca ku ci nekkul yaa nga ca yow waaye inna alladina kafaru naka gaa yi nga xam ne danoo weddi seen borom min ahlil kitaabi laala moom ko céeri la wa mooy yahut ak nasaraan wal musrikiin ak jullit ñi itam wal musrikiin ku ci weddi yàlla ak ku ci bokkaale ñoom ñëpp fi naari jahannam kon bépp yahud nga gis muy mm. woote ne uzayrunullah sawar la jëm de mm. bépp nasaraan boo gis mm. muy woote ne Isa doomu yàlla la yu xamul kenn xamul yàlla ñett la am na place fii fii naari jahannam mm-hmm. waaye bépp jullit itam bu weddi yàlla itam foofu di mm-hmm. fii naari jahannam mm-hmm. xaalidin mbir moom ñu wey beel sax fii haa ca sawara soosa ulaaka la gaay hum ñoom sarrul bariya ñoo gën a yées ci bindeef yàlla yi ndax la taxoon ñu bind leen dañu ko fàtte hmm. waxoon nañ su ma rena sola saafir hmm. alquran mooy firi alquran hmm. dégg nga ko bu baax waaye inna lazina amanu mu ne mu xaabala naka ñi nangul yàlla gëm bu baax a baax wa amilu saalihaati ñuy def farte yeeg naafile yi ulaayka yooyu la gaay hum ñoom ñoom kese kese de xayrul bariat ñoo gën ci mbindeef kon boo nekkee nit boole ci nekkub julit lu yàlla bind yaa ci gën ñoom jazaahum seen pay inda rabbihim nekk na fa seen boroom mooy jannaatu adinin aljana yu sax ja nga xam ni tajri dafa daw min tahtiha ci suuf aljana ja al anhaar yoon lay ñeen xaalidina mbir moom ñuy wéy béel fiihaa ci aljana ja abadan dégg nga de ñooñu na jullit ñooñu radiya gërëm na allahu yàlla anhum ci ñoom sargal na leen waaw gërëm na leen bu baax a baax ci seen jëf ju néew jooju tamu sell ñu indi ko ci sama kanam ma fay leen wu bari yii gërëm leen a tax ma def loola ñoom itam kontaan nañ wax dëgg yàlla dellowaat nañ yàlla njukkal wara du gërëm nañu anhu ci yàlla ci def gii mu leen defal lii te ñoom it defaluñ yàlla lu tax mu defal leen lii dangaa def rek bi max di fadlihi zalika lii nag ma fi tudd yàlla gërëm la nga gërëm ko li man xase ñel na képp ku ragal moytu rabbahu ñel na képp koo xam daal jéem na ragal mbugali yàlla moytu tereem yi kooku mooy am loolu saar woowu noonu la day zilzal madaniya la juróom-ñetti aaya la fanweeri baat ak juróom téeméeri xaraf ak ñeen fukk ak juróom-ñeent yowmal xiyaama lay jàngale tremblement yi am sama borom ne yu xew fii yu ndaw la bu mag bu ñëwagul bu mag bu ñëwee ngeen xam ne wax dafa am daaneel ne bismillahi rahmaani rahim bu fekkee yëngaleef na al ardu suuf sii zilzalaha yëngatoom gu magga kon yëngatu yi am fii tremblement yi am fii yu ndaw la yëngatoom gu magga gi jaaxal ñëpp waa xarajati génnee al ardu suuf askaalaha ay diis diisam képp kuñ ci suuloon nga génn lépp luñ dugaloon ci biiram te bokk ci nga génn bu boobaa nag lii di xew waxaala wax na al insaani kooku ñuy woowee nit waaw maalaha lan moo dal suuf lan moo xew mm-hmm. ba suuf di doxale nii muy doxalee tey silhu li xew mm-hmm. yàlla yow ma sin bu keregee suuf di def nii mm-hmm. tuhaddisu dana waxtaane moom suuf axbaaraha ay xibaaram lépp lu waay jëfoon ci kaw suuf yiw la safaan la suuf dana diw sàngam defoon na ci sama kaw nangam bu lu baax dana ko wax buy leen dana ko wax su ne suuf lu la wax loo mu ne bi ànd rabaka naka sa borom aw xaalaxaa mooma sant lii moo ma wax yu pour lii ma wax ko moo ma ko yenkeewal sant ma ko pour ma wax hmm. dina waar de yàlla nee na fu suuf di waxee nag am gémmiñ di wax comme nit yow mooy suñ bu ko régee lii di xew hmm. yas duru dana tàqalikoo dana gongiku hmm. annaasu nit ña astaata mbir moom ñu nekk ñu tàqalikooy tàqalikoo ñii jëm aljanna ñii jëm sawara lu tax ñu jëm aljanna ñuy gis amaalahum seen pay jëf ya ñi jëm aljana xam ne ñoo jëfoon lu jëm aljana ñi jëm feneen xam ne ñoo jëfoon lu jëm feneen fa man yaamal képp ku jëf misqaala zarratin li tal ni pepp mooy ceeneer yooyu di dugg ci fenêtre bi bu la jant bi tiimee ceeneer yu sew yooya nee na ku ko jëf ci yiw xayran ci yiw ah yarahu moom ñaq réerul boro ak loo mën di jëf rek lu mu rek da Euh, mu tuuti ak mu mu bëri yëpp ci bokk yam mm-hmm. moo tax it daan wax ne moytu maa ngi leen di moytuloo bàkkaar yi ndaw yi ngeen di xeeb mm-hmm. ndax yooyu kat mën seen si topp kat mm-hmm. yarahu kat kon loolu ma di bàyyi xel la léeg waaye wa ma yaamal képp ku jëf misqaala zarratin lu toll ni pepp atam pepp zarra sarran ci musiba ak ay moom it yarahu nga gis mu xaabala bi foofu xayran ak sarran la mhm. dëgg la ah wax na dëgg de alxuraan moom tabaarakallaahu dara dara dara lu ne rek boo ko xoolee rek toujours li li li kii li maam tantaaw yi daan wax mhm. nee na jullit ñi ñoo fi nekk di nelaw rek waaye alxuraan moom lépp a ngi ci tubaab yi nag dañoo sàcc xam bi dem di nga këlan-këlangee fii lañ ko sàccee fii la ñu koy sàccee toujours mhm. moom imaam tantaaw yi dafa wax loolu ñun nag ñoo gàtt yitte tubaab yi moom comme adduna leen jaral lu ne di topp mbir ay ati at ñun moom mënuñ kaa topp ren ba déwén ñu néew a ko fiy def topp mbir ren ba déwén saar woowu noonu la day eh, tabarakallahu ñëw ci aadiyaat yi dégg nga aadiyaat màkk fukki aaya ak benn la di ñeen fukki baat téeméeri xaraf ak juróom benn fukk ak ñett nit nag lay wax ak weddi gam weddi yowmal qiyaama ak la ko mën a fekk ca weddi ga wala aadiyaati giñ naa ko ci fas yi nga xam ne dañuy xelu ci xare yi dabaan bay xoox di kook-kooki noonu xam nga fas léeg buy daw da ngay kook kook nga yaakaaran moo ko def xuur yaa koy def du gémmiñ ji xamoon nga lool mm-hmm. ah njëkkanti jëriñ ko ma njëkkanti xam xamoo ko woon de da nga de ah kon baax na nee na maa ngi waat ci fas yi nga xam ne dañuy daw bay xoox noonu mm-hmm. looy waat leeragul li muy waat fal muriyaati naa ko ci fas yi nga xam ne dañuy xosi xeer yi muy génn sawara kadan ak xosi xam nga xeer yi bu ci seen tànk yi jógee day génne ferñeent waaw ndax ndax kii yi ci nekk weñ yiñ ciy daajeg yooyu léeg-léeg loolu koy indi fal mughiraati giñ naa ko ci fas yi nga xam ne dañuy lokki ci geer yi subhan ci heure suba mooy dem ci geer yi duma ñuñ doon xeex nangu la ñu yoroon yëpp indi ko maa ngi waat ci fas yi def loolu faasar na nga xam ne jekki nañ ñoom fas yi bihi ca place booba këli yooye jekki nañ ci nakaan poussière boo xam ne tabaarakallaahu bu yéeme lay doon fa wasat na diggale nañu bihi ca poussière booba jamaan ay mboolooy mbooloo jullit ñi taxawe ne yéeféer ñi taxawe ne lan moo dox seen diggante poussière bi jóg looy waat lan la na li may wàddee mooy innal insaan naka wér na ko ku ñuy wax nit la ka nu dun ku goree dee ngi nii li rabbihi ñeel boroomam li ko yàlla jox yépp au lieu que mu sant ci boroomam xanaa di def neneen ak sant leneen waaw kanuut nag ba ko yënt bi firi mooy ki nga xam day lekk moom kese bañ di joxe waaw ku goree di rek siis rek wa innahu nag moom nit ala zalika ci goree dem googu la shahidun ku ko seede ci boppam la ne moom day ko soxor la te it ku goree ji la te wa naka moom nit la shadidun ngay jëli ngay jëli foofu ku bëgg la ku tar la li xubbil xayri ci bëgg alal alal moom ni mu ko bëggee ak lim mu ko jaral kenn xamu mu day afala yàlla mu xanaa dafa xamul ida boosira bu fekkee gësameef na yëngaleef génneef maa fil qubuur lépp lu ci bàmmeel ñu génne ko lépp ngeen koy gis ña duggoon ñëpp génn mooy ñun ñii wa xusila leer leef maa fi suduur yulli ko li ci dënn yi feeñal ko ñi nanguloon yàlla ak ñi nanguloon yàlla lañ daan nëbbu ci dënn yi yëpp yàlla feeñal ko dossier yëpp yàlla feeñal ko hmm, lii dana doy waar am lu ma la ci waxoon démb fa maa lahu min quwwa wala naasir inna rabbahum naka seen boroom bihim ci doomu aadama yi la xabiirun ku leen xam la ba dañ ba jeexal leen tàkk ku xam seen biir biir la comme ni mu xamee seen biti yow mu hin bi ko regee saar woowu noonu la day ah, takaasuru takaasur ah ah dégg nga xaari mooy aji fëgg ji moom it fukki aay la de bismillahi rahmaani rahim nee aji jommale ji wala aji fëgg ji xol yi mooy njàqare lan moo la xamal malqaaria wala alqaari malqaariatu lan mooy aji fëgg boo foofu dafa ate bayaan mu def mooy mooy dafa jël ismu zahir tegal ko place damir ndax maa hiya ba mu ne alxaariatu nga nekk maa hiya mu xam ne mbir mi du garaaw foog day indi ismu zahir mu gën garaaw ne mal xaaria lan mooy aji fëgg ji aji jommale ji loolu mooy lan wa ma adraka ana lan moo la mooy aji fëgg ji aji jommale ji njàqare nee na yow ma bis la boo xam ne bis boobu loolu di xew aji fëgg foo di fëgg xol yi yakun dana nekk annaasu kalfaraashi mel ni ki ay luppalupp almabsuusa yedi yeñ tasaare luppalupp yoo xam ne bu lamp bi tàkkee jamonoy lolli nga xam ne mbay maa ngi toll ci dégg nga maam bëgg a góob ak kenn xamul noonu nga gisee luppalupp yi ni ñuy tapp tappee ci làmp yi ak euh, di saar yeeg euh, yeneen yi wànqe yeneen yi ci des ak yooyu nga xam ne heure yooyu rek la naaw ne noonu nga leen di gis nit ñuy mel watakun daa gis ba tey dana nekk kon aljibaalu montagne yi montagne yi di xeer yi kalaax ni mel ni ki ngëndal mooy kawar almanfuus ba di bañ mokkal nooyal ko ba mu nooy pour lan def ko seen tiir mbaa ñu def ko yére nee na maaman sakulat ndaal képp koo xam ne diis na mawasinuhu balaa si yiwam fa huwa moom fii ichatin mi ngi ci dund radiyatin bu bu bu ñu gërëm xanaa nekk na ci dund boo xam ne dund bu ñu gërëm la waaye dunday gërëm moom mooy gërëm dund ba loolu ma jaas la rek mu jël gërëm gi ak ci dund gi dund mënul gërëm nit mooy gërëm da nga wax waaye waa maaman xafat ndaal koo xam ne woyof na mawaasinuhu balaa si jëfam fa ummuhu këram haawiya la foofu aaya jooju def na ci lu ñuy wax lixtibaat mooy aaya ji ci kaw am na lu mu fa dagg nga déggee ko ci aaya ji aaya ji am lum ci indi nga déggee ko ci aaya jële ndax bam ne fa huwa fi isati maasilu fa ummuhu fil janna waxu ko daf ko tëb fee wa huwa wa huwa waxul fa huwa fi isatin saakitatin daf ko dagg waaye yaay déggee lii fële lële fii nga déggee ko fii loolu mooy lexti baat dégg nga de kon fa ummuhu tafuwaayam tëkkuwaayam haawiya la wa ma adraaka lan moo la xamal maa hiya lan mooy haawiya xamuloo ko mu ne naarun sawar la woo xam ne xaamiyatun aji tàng la jër nañu ci yàlla musal saar woowu noonu la day takaasur màkka la juróom-ñetti aaya la <coughs> moom itam nit ñi jublu giñ jublu adduna ba fàtte ne dee dana ñëw tax li waroon seen digganteeg sen borom ñu sàggane ci lu bëree bëree ba seen lisaanul xaal moom xaw nay weddi dee sax nag seen lisaanul moom weddiwu ko waaye seen lisaanul xaal moom xaw na weddi yàlla dikk nag di ñu jàjj pour ñu delloo wat waat xel yi bismillahi rahmaani rahim alhaakumu soxlaal na leen yitteel na leen ba nangootu leen dara yàlla mbaalu ngeen nekk ci wàllu yàlla aduna dox na seen digganteeg loola ba da ngeen ko waroon a taxawee taxawaay ji des na lan moo leen soxlaal ba tax ngeen xaw fàtte yàlla mu ne atakaasuru ëppalante ci alal maa la ëppi kër maa la ëpp oto maa la ëppi tool maa la ëpp maa la ëpp maa la ëpp hmm? noon di nekkee xataa zurtum dem ba ngeen ziyaare dem ba ngeen nemmiku almaxaabira bàmmeel ya mooy dem ba ngeen dee rek la bëgg a wax nekk di ëppalante di ëppalante ba xëy na kuntum dee waaye ëppalante booba gaa yaa ngi koy jaay ba ci biir bàmmeel yi nga gis ñuy suul nit nit di woonte fee di tëral ay porose nga gis ñuy suul nit am kuy wootante ci biir bàmmeel yi di seet nu muy dóoree sa waay lépp ci biir bàmmeel yi dañuy tege diili su imaam ne nañ joxe ñaan fi ñeen fukki lixlaas ak benn toujours li wax rek du ma dañ ci ko wax kenn ku ne bu yóbboo nga fi daaw sa bopp ndax nit ñi moom pressé nañ pressé goo xam ne gënuñ laa gaaw làmmiñ gënuñ la kaa mokkal te bala nga ne ñeen fukki lixlaas ak benn bala ngaa am fukki ñoom ñu taxañ seen course ah sa waay ma jàppale la de ñaata la dese koo jàppale da ngay gis ñun ñëpp dañuy dem ci nit ñi tanaan ma jàppale la ñaata la dese moo tax nag fi daaw sa bopp nag taxut dee fi daaw sa bopp taxut dee de mm-hmm. waaw waaw bu la neexee fi yaa xam façon boo koy defee nag ci saatu annabi laa ilaha illallah comme ne ko seen wala salaatu ala nabi astafirullah yaa man loo xam pour ñaanal yàlla sa bopp rek pour yàlla jéggal la hmm. rek nag ah du mag ñaa ngi nii dañ daan xotti càngaay denc ko ay ati at al mu jot ñu saraxe ko te taxu leen a dee loolu dana moytu ba njuumte yu bëri doo ci dugg fekk yaa ngi gis càngaay li da nga di contrôler sa bopp hmm? ah bis bu nga gis ko kon xatta zurtumul maxaabir yàlla ne ah kallaa jaajju leen taan la gi rek tegin bu ngeen demee dee ci bàmmeel yi bañ fay jaay jomba ñaaw bañ fay jaay maale gën a rafet la bàmmeel léegi dañ fay puugarante sax di bàmmeel diw moo gën a rafet bàmmeel diw ah foofu de lu fa waay jaay mu lambu de ndax ku la lu neeng fa nag ñu la ëppoon alal gën la ragal yàlla gën la lu neeng fa waaye ñu la gënoon a saay-saay itam ña nga fa tëdd itam di ñëpp ne nemm na ner sawfa taalamuun daa ngeen xam ne mbir mi tëddeewul ni ngeen ko foogi mu waxaat summa kallaa topp ngeen jajju te yaru sababa taalamu daa ngeen xam ne mbir mi du mbirum xëccoo de kallaa dema de dëgg-dëgg law taalamuuna bu ngeen xamoon ilmal yaqin bu wóor a wóor waxoon nañ la nag diggante ilmul yaqin ak aynul yaqin ak xaqul yaqin jàlloon na kon nga bàyyi ci xel xam bu wóor wor wóor bu ngeen amoon xam-xam bu wér a wér daal lii ngeen di tiitaroo ko puukare daa ngeen ko bàyyi la tarawun na daa ngeen gis aljahima mu doyoon mu def lit naab dama ne summa la tarawunnaha topp daa ngeen ko gisaat aynal yaqiin ci bët bu wóor hmm. ma mooy gisin boo xam ne doo am sikk sàkk ci li ngay gisay lan summa la tusalunna hmm. topp def na leen laaj yow mu isin bu keregee hmm. ani naimi ci xéewal yi maanaa li nga daan sol foo ko jëlee day leer li nga daan takk foo ko jëlee waaw li nga daan war foo ko jëlee fi nga dëkkoon ndox mu sedd mi nga naan nag mu tàng mag lépp foo ko jëlee yi nga daan laal foo ko jëlee summa la tusalunna yawma isin ani naimi ma ngoog noonu la saar woowu daj euh, nga jàll ci asr màkka ci di ñetti aaya moom tamit wala asri ginnaa ko ci jamono ñenn ñu ne de ginnaa ko ci tàkkusaan ndax tàkkusaan mooy julli busta am ñu wax lool am ñu ne déedéet ginnaa ko ci dund Seydina Muhammad wala ci jamono Seydina Muhammad lu mu ci doon daal ndax jamono yëpp jamono Seydina Muhammad nag moo ci gën nag wax dëgg yàlla te moo mujj ci jamono yi ndax jamono yéen ci yëpp ko li may waat mooy inna al insana ñenn ñett li tax ñu wax ko salaatul wusta yenent bi moo jàngale mooy salaatul wusta te ba ca xandax ja bañ leen tardelee bañ tarde julli tàkkusaan ga daf ne yàlla yàlla feesal dell si néeg ak sawara ngir tardeel gi ñu tardeel salaatul wusta gi te mooy julli tàkkusaan gi inna al insana naka doomu aadama la fii xusri mi ci perte nga gu réeréeréy ñoom ñëpp a nekk ci perte nga ñëpp mu ne déet mu indi listisna bi illa alladina lul gaa yi nga xam ne amanu gëm nanu te mooy ñun jullit ñi wa amilu saalihaati ñuy def farteeg naafile yi wa tawaasaw ñuy dénkante bil xaq ci dëgg ndax ci dëgg lépp ci lay taxawee wa tawaasaw yi ñuy dénkante bi sabri dénkante dëgg ak muñ ndax mu it li koy doxal mooy dëgg dëgg yi li koy doxal mooy muñ kon ñaar yooyu benn mu dem si dem sa bàyyi sa morom am ci ahlul isharat ñu ne inna linsaan naka abu jahlin la fi xusrin ngi ci perse nga illa lazina amanu ba mu des sayyidina abubakar wa amilu ak wa tawaasaw bil haqq ak Seydina Ousmane wa tawaasaw bi sabri ak Seydina Ali am nañu jaar foofu saar boobu noonu la day dégg nga humaza waa ci juróom-ñeenti aay la moom itam li muy wax ñii jëw ku fi ne ak ki fi newul nanu ko bàyyi bismillahi rahmaani rahim waylun mbugal wala wenn xur ci jahannama li kulli humaza ñeel na bépp jëw ñeel na kuy jëw ku fi ne lu mazatin ak kuy jëw ku fi kul am ñu ne humaza mooy jëw ku fi nekkul lu maza mooy jëw ku fi ne yëpp firee nañ ko ko waaye xeet la ci xeeti jëw yi Walid ibnu Muxiira moo daan def loolu ak ku mel ne ki moom rek alladi ka nga xam ne jamaa dajale na maalan alal wa addada mu koy kalkin rek bu dee mu génne xaalis bi kalkin ba mu jag dellawaat ca barabam lu tax muy def loolu nag yaxsabu ma ngay joortu ne anna maa lahu naka àllam jooju axladahu aj béel la ko fi kallaa a du fi sax de la yumbasanna daañu ko sànni fil xutama ca sawar soos ñuy wax xutama sawar si nga xam ne lay moxoñe foofu lañ koy sànni wa ma adraka lan moo la xamal mal xutama lan mooy sawara soos ñuy wax xutama xamuloo ko naarullahi mooy sawaraw yàlla wa al muuxada ba di bañ taal allati mooy sawara ba nga xam ne dafay dafa yuurndu alal afida ci xol yi léeg-léeg nga dégg ne seet bi ci sama xol bi laa koy yëgee muntaxaa léegi sa tànk loo ci wax ci sama xol bi laa koy yëgee yaa fi waxoon léegi mooy tattalo ala lafida sawara woo xam ne bu la laalee mitir bi yaa ngi koy sentir ci sa xol waaw léeg sa waay sa daal sedd bi daal dafa métti métti ba ci sama xol bi laa koy yëg mooy tattalo ala lafida yàlla nañu ci yàlla musul innaa naka sawara woowu mu sedatun lu ñu këpp la alayhim ca kaw ñëwee di woon yàlla ñu nekkaat fi amadin ci ay keno ay poto mu madda mu mumaddada yu tàllal yoo xam ne dañ ko tàllal ci biir sawara dugal leen ci biir kene ya di leen fa lakk-lakk gu métti fii li ma ngoog yaa wayla abrahatin dallat makidatuhu dégg nga moom nga déggoon Cheikh Sidi Hadj Maal doon la ko wax naan la wa fi alam tara maa yasfi sudura liman ara lahu zaman fi ilmi xaalihimi dafa am benn bandi bu ñuy wax abraha nekkoon yaman nekk fa ba benn bis lenn ci waa Màkka romb ko gàddu ay marchandises yu bëree bëri mu laaj ñii fu ñu jëm ñu ne ko ñii de Màkka la ñu jëm luñ fay wuti mu ne Kaaba ga la ziyaare buñ ko ziyaare alal ji dañ ko fay bàyyi def ko hadiya mu ne ah ma loolu koy projet taxaw na sance yi kay taxaw na ci sama dëkk bi li wër yaman comme may gouverneur bi ki nga xam ne moom a yilif di asxama bokkut ak najaasi bu yenent bi nag beneen asxama la moom naa ko wax mu may ma ndigal ma tabax fii benn néeg bu ñu tuddee Kaaba su ko defee li aju ci sama reson bi yëpp di yem fii au lieu ñuy jéggi fii ak xéewal gi di ko yóbbu Màkka su ko defee dëkk bi mën a développé bopp lii la wax ka ko yilif tabax fa benn néeg ba mu pare benn waay bu bokk ci giir Kinaana am ñu ne sax Malik la tudd moo dégg loola ñëw ne Abraha damay ziyaare ci Kaaba gi ba mu ñëwee nuyonteeg Abraha jàmm santeeg moom tabaarakallaahu ne ko damaa dégg ne da nga fee am néeg bu bees ma bëgg bala nga kaa inauguré ma léemul la ko defal la ci xalwa ñaanal la ci mu ne ah waaw loolu dana ci baax ndax yéen a yor néegu cosaan bi waa ji daal nekk bañ koy persanti dëkk bi fu fonce nekk ci guddi gi ci bëccëg bi xam na ko mu bàyyi ba guddi rek fonce yem mën tijji mu tijji leen takkal ko ci la abraha tuddee kaaba dal di yox ci guddi gi nag abraha dem ba yeewu ci fajar suba gi wax bëkk léegi nañu xoole gan gi ñu ne ah, gan gi ci jéegul de ba bi ñetti yoon nag lañ daa gën gi xam ne dafa fanaane jaamu yàlla ci la wax ndaw li soo demee nga fëgg ko nag kooko ba mu fëggee ubbi daal tabaarakallaahu dafa daal bakkan mu mm, mm, ji fu waay toll xam ne gan gi def na njombe abraha ba mu ko yégee nag lii ay pexe la yoo xam ne dañuy jéem a gengenteeg man sama néeg bi waaye daañoo xam ne bàkk nañ njaag ah léegi nag ab dëkk moo ne leen duma takko laa leen te cokkaasoo leen kon li may def mooy cokkaas leen dal di jël kenn ci waa kër mi ne demal soo gisee fii ci xuru màkka wi lépp lu fay gileem mu wóor na waa màkkaaka moom na del si fii gileem yi nag booba la taa màkka ka fa nekk chef d'état bi mooy góor gi Abdul Mutalib màkka yëpp topp ci ginnaaw moom it amoon na ci ñeenti téeméeri gileem la gees waa màkka moom ko kooku ba ñu jëlee gileem mu ñëw ci Abdul Mutalib ne ko ah, yaay kilifa gi kat te gileem yi kenn ci ndawal Abraha jël na ko kilifa yi màkka yi daje ne ko ah góor la moom kilifa la ngay kilifa demal ngeen lijjanti ko yéen ñaar ngeen seet na ngeen naxantee ba mu dellu si wàllu gileem yi góor gi Abdul di yen doo ko fanaanal bàgg yaman Abraha yuurdu ko defoon na ci néegam bi benn porox ndox boo xam ne ku ñëw da lay gis comme verre yi nga xam ne léeg-léeg moom la gars yi def ci seen barab yi wala ci oto yi nga xam ne ki ci biir moom moo lay gis waaye yow ci biti ko gis moom moom la gis moom lay moom la lay xoolee su la xoolee bu fekkee borom daraja nga soo ñëwee day lal si jaadaan bi ngeen toog ci ni yéen ñaar sësante seen i kenn ku ne jàpp si kii morom ngeen di waxee waaye bu fekkee nag am ñoxor xof bu mel ni man nga day toog ci njoowaan gi yow nga toog ci suuf ñu kaa njoowaan muy waxtaan ak yow aka saay saay ba mu gisee góor gi Abdul ak xayba bi nekk ci moom ak sikkim beeg yooyu nuyonteeg moom jàmm santeeg moom ba ba pare nekkal doon tànk mu nekk giléem yi mu nekk euh, law laa saalta xima baytin Hmm. sarofat bihi abauka alxurr bayna al orbi wal la loo xam ne sa ay maam ak sa ay baay buñ leen di xam ñu leen di xam ci adduna bi yëpp ndoona liñ doon ñëpp xamee leen ko mooy kaaba gi teewoon nga laaj loolu mu nekk nag lil bayti rabbun sa fa yahfaduhu adima qawmika laa bukki siwa naami yow mi gën a màgg ci saw man daal li may lijjanti te moom ko mooy samay jiléem néeg bi nag am na borom bis boo ko laalee <laughs> da ngay xam ne wooy dafa am daaneel de Abraha ne waaw d'accord léegi jox leen ko gileem yi ñu jox ko gileem yi góor gi Abdul Mutalib nag ñëw ne ah bandi bi kat nee nañu da ñëw fii dana songo kaaba gi waaye lépp lu waay bañ mu yàqu ci dëkk bi daal gaawal génne ko bala muy ñëw Abraha nag départ bépp dëkk boo xam nekk diggante Makka ak mm, mm, dëkkam waañu ñun bari daan jeexal yi ñaari saara ñetti saara ci kanaaw da jaaxal na ma trop de te te gis nga liñ cee lay commencé dégg aha ne ko daal bépp dëkk boo xam ne nangu ànd ak moom ci xeex ak waa kaaba gi mu duma waa dëkk ba noonu la def noonu la def ñëw ba jub si kaaba gi nag yàlla ji yebal jibril ak mikaal ñu koñe ña yom waroon maamuduhu fa abul abbasi kuniyatuhu fa fil muqammasi abal qasda lil xarami la seex sidi haj malik waxoon ba mu ñëwee ba ci xurwa ñëw muqammas gilim gi dafa bañ na dafa bañ na du dem yeneen ñay yi nga xam ne kenn doxutoon seen diggante kaaba gi nag dañ doon avancé yàlla yebal ay picc yoo xam ne picc yu ndiiraan lañu jël ay xeer ŋànk ko ci seen képp ko ci seen tànk yi seex yenn yi ci seen gémmiñ suñ agsee ba kam war a dal da koy dal ci boppu mu jaar ci biiram génnee ci buntu suufam daaneel ñaay bi Abraha dafa jékki-jékki rek gis gaa yi daan ta xamul li leen di daane lan la ba mu gisee ñëpp yi daan nag ci la tourné ñaayam woowu pour del siwaat yaman téere yi nee nañ ko amoon jëmm la waaye ba muy ñëw keroog dafa mel ni picc muñ suqi ngir tiitaange <laughs> mu ñëw gaay naan kaa sëñ bi lan la son excellence lan la mu ne ah man daal gaay yi daal dañuy dem bu jub kaaba gi ay picc di leen daal man xam naa bu fi benn nekkoon sax ma wan leen ko fam naan bu fi benn nekkoon joxoñ benn rek ndeke booboo ko war ray tàggi boo gis dafa am jàppal diw ma ngoog loolu la ñuy suñu borom di nettali fii boo ci bëggee lu gën yaatu nag boo demee ci téere siira dana yaatu ak lool comme gàmmuwun nag dañuy nañ bismillahi rahmaani rahim sa borom bi asaabil fili naka la sa borom jëflanteeg ñoom alam yajal xanaa deful moom yàlla kaydahum seen pexe ya fii tadlilin mu nekk ci esek wa arsala yabal na alayhim ca seen kaw tayran ay njanaaw ababil yey way ndiiraan fa jaalahum mu jël na leen moom yàlla ka asfin ñu mel ni ki am mboob wala am ñax maakuulin ba di bañ lekk boo xam ne jur gi lekk nañ ko ba mokk ta na mel sama borom ne ba ma fa jaare sama kattan noonu la ñu mel ñoom ñoo ñu le saar woowu noonu la day fiili xurays man nag nekk dama taataar màkka ñeenti aaya la tabaarakallaahu moom itam euh, di euh, fukki baat juróom-ñett dégg nga maam di juróom-ñaar fukki xaraf dégg de bismillaahi rahmaani aha di wax ne waa Màkka yéen seen ñàkk jaamu ngeen ma ñàkk jaamu ak fi ma jaar ak yéen defal leen teraanga ci abraham yi bëggoon a ñëw ci kaaba gi ba léeg-léeg sax gis ñoo xam ne dañ na fii la Quraysh benn saar la am na ci mu mufassiru ñu jàpp loolu waaye waa tee rek tàqal nañ leen ndax dañoo xaw a nuru lu ñuy wax li laa fi Quraysh tàmm goo xam ne Quraysh tàmm na ko walla miin goo xam ne Quraysh miin na ko waxagul lu ñu miin de ak liñ tàmm waxagu ko tàmm goo xam ne tàmm nañ ko wala miin goo xam ne miin nañu ko lan lañu ñu miin mu ne rihlata chitaa yi voyage ci jamonoy sedd jëm côté yaman bu seddee ñu jëm côté yaman wasay ak laxas tukki ci jamonoy tàggoor jëm côté saam ndax bu boobaa foofu la seen mbir di doxee bu jamonoy seddee fee seen mbir di doxee ñoom dong la yàlla defal loolu ci réew yi leen waroon waaye beneen réew bu moom amuloo ko woon kon lii jafe na saa borom yàlla mi leen defal lii nag rikki lillaahi wa rasuli fal yaabudu jaamu leen yàlla jaamu leen rabba hadal bayt yàlla mi nga xam ne mooy borom néeg bii di kaaba gi waxu leen jaamu leen néeg bi waaye borom néeg bi la wax hmm. allazi borom néeg bi nga xam ne bokk na ci lim leen defalaat ataamahum moo leen di leel min juuin saa bu ngeen xiifee xiif bu tara tara tara moo leen di jox ngeen lek wa amanahum moo di wóoluloo jox leen sécurité min xawfin jamonoy tiitaange réew yëpp yéen a ngi fay dégg ay attentat lu ne ngeen dégg ko fa waaye yéen moom wa amanahum min xawf yàlla leen ko defal kon jaamu leen borom néeg boobu noonu la saar woowu day maaun mooy tekki njëfandikoo kaay màkka la wàcc di juróom-ñaari aaya juróom fukki baat dégg maam ak ak ak ak ak ñaar téeméeri xaraf ak ñaar fukk ak juróom ni saari màkk yi waxee rek lay waxee bismillahi rahmaani rahim araayta xamal ma alladi ka nga xam ne yukkasi bu dafa weddi bi diini moom nga déggoon sëriñ Cheikh dan firée yu bu dafaa weddi bi diini ci njëriñal diine te ku weddi njëriñal diine nag weddi nga yàlla fa dalika kooku di weddi diine njëriñal diine alladi mooy ka nga xam ne yaddu dafa bëmax al yatiima njirim ba xàq ji war ci moom war ko doxal du ko doxal kon képp koo xam ne jirima ci sa suuf wala foo ko sax nga kay doxaleeg moom benn doxalin wu ñaawi fa amal yetiima falaa takaar wa amma saayila falaa tanhar jàngoon nañ ko léegi wala yaxudd te du ñaaxe du boppam du keneen ala taamil ci leel ku ñàkk du soññe kenn nañ dimbale kenn fa waylun mbugal lil musallin ñeel na ñi nga xam ne dañuy julli ah ñen ñuy julli wala lay wax indi na màndarga indi na ay sifaat yoo xam ne jullikat yooyu lay wax alladina mooy ñi nga xam ne hum ñoom saahuuna way sàggane lañu an solaatihim seeni julli ba waxtoo passé njàpp moo du mat laab ga du du mat mooy an solaatihim saahuun rukon yi du mooy la nga déggoon Cheikh Sidi Haaj Maalik waxoon rek waxat yu si ba aari insaanin wa ma akmala rahmaanu li salaati ñee ne léeg julli ba ñaari ngaamam yëpp weex tar tar te du amal yàlla mooy fa waylun loolooy indi fa li lil musallina an salaatim saahun waaye du kuy selal ci julli nag kooku taxut koy wax kii bàyyi ba waxtoo passé julli gi di fo ci biir julli gi nu ko neex jullee su amee jot julli su amulee julli bàyyi yooyu yëpp day dugg an salaatim saahun alladina mooy ñi nga xam ne hum ñoom yuraawun dañuy gisal ci seen biir julli ñooñu naa leen duma wa yamnaawuna ñuy aaye almaawuna njëfandikoo kaay yi lépp loo xam ne te nañ ko nit mën ko kaa abal mu abbu leen ko dañ koy bañ waaye na fekk yow mañ koy abal tabaarakallaahu nga bañ ko yàq yéen bañ ci jëlgati ndax am na noo ci jëlgati itam tabaarakallaahu kay abale itam dootu la mën a abalati su ko defee ñooñu itam ñuy waxanteeg ñoom kawsar màkka la wàcc aha nee ñu mi ngi wàccoon ci Aas ibnu Waa'il la wàccoon dafa dajeeg Yonent bi sallallahu alayhi ci Kaaba gi di wax ak moom am ku ne ko koo mu ne al abdar de laa doon waxanteeg mooy ku njàdd ki ku njàdd ki nag mooy koo xam ne kum jur mu faatu ñoom noonu lañ ko déggee woon yàlla na dee <laughs> njàdde piir kay mooy ku niki ni ki euh, Aas ibn Waa'il boobu bismillahi rahmaani rahim ñetti aaya la dégg nga bëriwul di fukki baat kese di ñeen fukki xaraf ak ñaar innaa nun yàlla aatay naa ko jox nañ la yow sayyidina muhammad alkawsara yiwu bëree bëri bëri nañ firin nag am na ñaar fukki firin waaye yiwu bëri dex nga dugg na ci hudan kawsan qad qasa allahu kawsara la Cheikh Sidi Ajmari waxoon yiwu bëri bokk na ca nubuwa bokk na ca alquran bokk na ca safaa bokk na ca lépp ci yiwu bëri la kon nañ ko fi ne yiwu bëri rek mu dugg laal yëpp bu la yitteelee comme waxtu bi xoj sa sara alkawsar yiwu bëree bëri bëri fa jullil li rabbika ñeel sa borom waxul fa salli lanaa de bu soon sàmmanteeg muxtar zahir day wax fa salli lanaa jàngalool ci bayaan ba wan xar lojal sa giléem yi sa xar yi tabaski inna saani aka naka kooku di la sabooti di la ñaawal di aas ibnu waa'il huwa moom kese kese laa wax al abtaru mooy ku njaddi ki nga xam ne amul benn xeeti yiw kon ku amul benn xeeti yiw mooy ku njaddi kaafiruun màkk la wàcc juróom benn aay la dégg nga màkk la la di ñaar fukki baat ak fanweeri xaraf xaw ma juróom ñeent fukki xaraf ak ñeent yéeféer dañ ne yonent bi leen daal lañ bëgg boo bëggee jàmm am weer wii di juin bi dañ koy jaamu suñu yàlla yi juillet ñu jaamu sa yàlla ji jàmm ne booy déggal waxin wi ah yàlla na bu mu fi amee qul waxal yow yàlla ah, waxal yow sayyidina muhammad waxal yaa ayyuhal kaafiruun yéen yéen yéeféer yi xalaat bu bon boobu ngeen teg bis ni ki tey fii may toll nii laa aabudu mu mës a jaamu mukk maa taabudu li ngeen di jaamu wala antum déedi yéen aabidu lu ngeen di jaamu fii ñu toll nii maa aabudu lu may jaamu te mooy wéetal yàlla wala ana déet man sayyidina muhammad aabidu may aji jaamu li ci kanam maa abatum la ngeen di jaamu mooy ay këram wala antum yéen itam aabidu ngeen di way jaamu ci kanam lii may jaa maa may jaamu kon lëkkum am ngeen diinakum seeni aada ak seeni bokkaale waliya am naa diini sama diini saar wi nag jaaxal na ma trop ndax xisa fato màkka boobu xam naa taxañ ko moom bu jàllee rek parce que day jàll nag aha diggante mag fi yenent bi faatoo nee na saar wuy dikk la tàgg yenent bi ba ko Seydina Aboubacar déggee laa xam ne saar yi moom tabarakallahu li ñaan ida tammal amru ba daa nax suhu mbir daal su demee ba mat commencé wàññeeku gisoo weer bi su demee ba ne ñu mu ñu maaral commencé di wàññeeku waat soo demee ba màggat li nga fi war a am jeex rek nga commencé di wàññeeku lépp commencé néewaat doole fataxu màkk nag moom itam la saar wi di jàngale xam nga boo jàngee boo fàttali ko ci ginnaaw am na ñuñ kóllërante woon ak ñoo ngi yi yént bi dafa kóllërante woon ak ñoom ne bu fi kenn xeex bi Hudaybiya tabaarakallaahu képp ku nekk ci sama pas-pas man yenent bi ah ngeen bàyyi ko bu leen ko def dara yéen itam ku nekk seen pas-pas naa ko bàyyi ci nañ waxee woon am ñoo xam ne giir gu ñuy wax Xuzaata dafa ak Banu Bakr ñoom ñaar banu bakr doon xeex ak banu xudaa tabarakallahu quraish dal di jam jàppale banu bakr giir xudaa dal di génn ñoom ñi nga xam ne yenent bi moo leen doon jàppale ñu di ko wax yenent bi daal quraish la nga waxante woon ak ñoom yëpp effacé nañ ko teg ko ci suuf yenent bi ne bis bu ma leen dimbalewul yàlla bu ma yàlla dimbale daal di wax nag fataxu màkk ay fa ci ñu départ daal di dajale mbooloo mi ñu mat fukki junni ak ñaar mbooloo mi bari na ñu yendoo ko fanaanal di yendoo ko fanaanal Abu Sufyaan yëgu ci dara dafa jekki-jekki daal dem bay doxantu benn bis rek gis yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ni ñu mbooloo mi ni ñu waree màkk taali sawara yeeg yooyu yëpp ah Abbas daal di génn ne ko ah, boo yeexee nag mas laa amatul fii bu fekkee bëgg nga jàmm bëgg sutura gaawal tuub balaa leneen di la ci fekk léegi nag lii jàmm ji ma garanti la da ngay yéeg ci baax la bii ma war ndax mu nekk garanti ci yow mbooloo mu romb nag ñu ne i eh, waa xanaa kii du Abu daal seen jaas yi pour wengal pour seet nuñ koy defe romb Seydina Alin ba ci Seydina Omar ba mu rombee Seydina Omar moom nag déedéet du bàyyi mbir mi mu sedd de topp ko ak jaasi ji rek ñëw ba ci buntu yenent bi ne yenent bi ak li may ñaan mooy nga bàyyi ma ak Abu ma tàggale baat beeg bopp bi naqar wuñ mus am moonu ko teg yenent bi ne ko Seydina Omar ndànk rek ba mu dal ne Abbas yóbbu ko si ngay fanaan su subaa nga indilaat ma ko ñu wax te ëllëg sa mu indilaat ko ko Seydina Omar nekkaat ci buntu ba ah yéen dina ko nag gis nga Omar a ngi nii sama ndigal rek lay xaar de moom bu ma naan na dal rek na dal xanaa dayul nag nga daytalu ci sa caaxaan yi mu ne ah xanaa ñu jéem tuub kon gis nga tuub bi daf ko forcé de gëmu ko sax nag tabaarakallaa ba mu tuubee yéen ne. damaa bëgg nag ngeen def fujum bu rëy ngeen defile ñëpp wër ko maanaam ñëpp di defile di ko romb léeg-léeg rek Abu Sufyaan famille arab yi di ko romb giiri arab yi di ko romb bu ko ci romb ñu ne mooy famille sàngam bu ko ci romb mu ne ah yow Abbas waa ji moom so mbokk mi man est-ce que lii nubu wala waa ji mbar yoonu ak nguur mu ne que lii di nubu nga ne nguur nguur Kisra kay gis seen état yi demeewul nii ñoom Xaysar seen état yi demeewul nii ñeneen ak seen pouvoir yi demeewul lii kay xam nga ne nubu wa dong ko mën ci woon nag tuub bu yénente nag dal di dugg màkk ci jàmm na képp koo xam ne dugg nga ci kaaba gi mbaa nga nekk kër Abu Sufyaan comme mooy chef d'état bi yénent dara jaalee ko loola na mucc nga ci la tuub nag tabaarakallaahu mujj nangu bokkoon sax bay bind bokkoon ne sax mujj na bokk ci bind wax yu gi sax nag far doomam itam yénent bi sam takkoon na ko di ñu dem ci saar wi tuuti ko yi na xëse yu gudd la boo demee ci futuhu màkka da nga fa gis mu wax ci téere mu noonu rek lay lijjanti fatu màkka rek waaye comme waxtu bi dañoo xoj foog ñu ni ñu xoj xisa bi bismillahi rahmaani rahim ida jaa bu fekkee dem na ba ñëw nasrullahi ndimbalul yàlla ndimbalul yàlla fataxoog léppang ca kon atful kaas ala am lay doon ak ubbee te mooy ubbi màkka waraay te daa gis annaasa nit ñi yadxuluna ñuy dugg fii diinillaahi ci diine yàlla ji afwaajan kuréel par kuréel fa sabbih bu boobaa santal wala sabbaalal bi hamdi rabbika ci sant sa boroom wastaxfiru nga jéem ka jéggalu innahu naka moom yàlla kaana nekk na tawaaba di tuubaa kon di nangu waa kon tuub bi maanaa ma ngoog masat juróomi aaya la moom itam taban laka alayha daatuna ba yëlant waxee yàlla wax ko woowal wa ansir asirataka al aqrabin woowal ñëpp ba yëlant woowee ñëpp giir yëpp mu woo leen kenn ku ci ne mun a xettalil sa bopp sawara xettalil leen seen bopp ci sawara yow Fatima nag bëgg naa nga xam ne sama alal loo ci soxla buy yóbbu nga jël waaye ca kanamu yàlla moom dara laa la fa mayoonul abu jëlin moo doon abu lahab moo doon ŋaamu ŋaamuloog saf-saflu làmmiñ di jéem a tontu foofa naka tabban laka ali hada daawtana wala ali hada jamaatana bismillahi rahmaani rahim hmm. yàlla dikk nag waxu ko xul hmm. waaye féete ma nii la góor gi bu saax woon ma saagal la ko nga xool hmm. xam nga saarif da ngay wax waxal xul waxal nàngam fii waxu xul ndax saagal sa baay ñaaw ba ëpp tabbat alkuna perte na yada abi lahabin ñaari loxoy yi wa tabba perte na laa wax mu gaaw tuuti bopp hmm? dégg nga na dem waa baax dégg alkuna perte na maa ax naa lépp loo xam ne woomaloon na ko dégg nga de an fu loola lépp perte na ko dégg de Euh, maaluhu alam perte na ko maa kasab ak lépp loo xam na ko dégg nga sa yes laa dana dugg naaraan sawara zaata lahabin bay boromi tàkk-tàkk wam raatu ak soxnaam soo suñuy wax umu jëmel nga xam ne yenent bi yoon wi mu daan jaar moo fa daan teg ay xeer mm-hmm. moo it dana yàqu de mm-hmm. ak soxnaam soosu alku na mm-hmm. moom mi nga xam ne mooy nekk yen waa kon matt ba fi jiidiha nekk na ca loosu ndaw soosu xam buum ëllëg mi masalin bu tukkee ci cëggi tàndara moo ñuy raw wala mi masalin bu tukkee sawara ëllëg bu ñu raw raw bu mettee métti dee ko ka laxaabee ca sawara lixlaas noonu la day ne yenent bi maanaa sa yàlla ji ngay wax nu mel nan la mel lixlaas nag booy xool sa sara ngëne li bëri na lool lool lool lool li ci yent bi wax waaw léeg nga dégg sax ñu ne bu fekkoon yàlla kuy am dante la mooy dante yàlla ndax melokaan mi fi joxe ci melokaan bi subhanahu kon boo xoolee Isra daa ngi gis diir li mu leer fa nañ mm. jàng ko daal moom baax na moom mm. bismillahi rahmaani rahim mm. waxal huwa liy mbir tey mbir jëmul fenn allahu yàlla ahadun kenn la ahad ak waahid nag bokkuñu ahad mooy loo xam ne dara jiituwu ko moom moo wéet ci melokaanam yi ci jëmm ji waahid nag mooy mooy koo xam ne dafa wéet ci ay melokaanam mhm. te waahid itam toujours day am lim buy tegwaat ci kanamam ahad nag dara njëkku ko dara jiituwu ko sifru pour nga mën ko dégg ci déggin bu gàtt mm-hmm. ahad kenn la ci jëmm ak ci lépp allahu yàlla bokk na ci ay melokaanam te ngeen koy laaj ndax përëm la wala weñ la wala bant la wala lan la assamadu mooy ki ñëpp jubli ci lépp lam yalit jurul kenn dara bàyyi ko wul ci moom walam yuulat dégg nga dara bàyyi ko wul ci moom walam yuulat dégg nga maam te juree fu ko maanaam bàyyi ko wul ci dara moom yàlla jurul te jure fu ko kon malaaka yi naan doomu yàlla du dëgg wala mu yekkul nekkul law di ko ñeel ku fa nawle ahadun kenn ci mbindéef yi amul kenn ku fi mën li fi yàlla mën saar wow noonu la day léegi nag soo ko defee saar ñaari saar yi des day bokk benn saa bu laay bu ëllëg bii juróomi aaya la bii juróom benn aaya la waqad saharu xayral waral Seex Seydi Haaj Maalik waxoon nee na fu ne jaar nañ faak rasulillahi ba dañ ko mujj yóbbu ci njabarkat bu ñuy wax Lubayd ibnu Laazam pour mu liggéeyal leen ko mu ne mën naa kaa liggéey de waaye pour ma liggéey leen ko foog da ngeen di indi lu bokk ci moom ñu ne nuñ koy amee ñu ne am na benn xarilu yahud boo xam ne day liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wasallam bokkoon na ci daan yor peñe bi peñe boobu jaartoom boobu la jël lenn ci kawaru yonent bi lu bay di liggéey lu mel ni ab sondeel def ko mu mel ni istati def ci ay loxo lu ne mu def ko ci jël fukki pusa ak benn samp ko ca di ci wax ay waxam ak i fasam nañ ko dugal ci benn teen suufu teen ba ngeen yëkkati xeer teg ko ca incha allah dina yëg dara ñu def ko ah yéenant bi nag commencé yëg dara waaw xel bi moom mi ngi fi waaye léeg-léeg mu jéeneer mel ni def na dara fekke deful dara lool it yàqul ci nu boogi dara léeg-léeg sax nga dégg ñaan wala yasmu financé déedéet wala yasmu mooy duñ la fi rayee kat da ngaa nat sa xel waaye cër yi moom yëgoon na ci diis diis yoo xam ne wóor na lii gën a si ci yaramam bokku ci woon ba ay sax sax nettali ne léeg-léeg mu ñëw ba yaakaar na jote naa ñun ci kenn sax fekk jotewut ak moom te la ko waraloon mooy diis diis yaram wa ba benn bis nag mu tëdd di nelaw ci gàttal Jibril dikk ak Mikaayil ne ah kii dinañ kaa liggéey xam naa lañ ko liggéey moom ma nga ca teen sàngam de xam naa daal bu ko mënoon a génne léegi lii nekk ci moom dañ yént bi ne tafit yeewu hmm, ruya kitaabun kadal ilqaabil malakin maratibul wahi la tartaba la tamila shaxsi daaj ma di waxoon ma ngoog yéen daal woo sëy na alin ak lenn ci saaba yi ne dem leen ci teen sàngam ngeen gasal ma ko ŋaccal ma ndox ma xeer wa nekk ci suuf ndox ma ngeen yëkkati ko dina am lu fa nekk ngeen indil ma ko ba ñu ko indee nag yenent bi commencé jàng aaye bu mu jàng rocc benn puso mu gis yëg na ci yaramam am na diis diis bu ci nekkoon foofu daal di commencé fecc ko diis diis bu ci nekkoon foofu commencé fecc ko ba fukki aay yeeg benn yëpp jeex yàlla ne ko ak saar wi mën nga ko jël di ko njabar amul nag ay caaxaan la yooyu caaxaan la nañ ci yàlla musal rek waaw kuy ñaan moom na nga ñaan yàlla musal la ci yooy rek waaye amul amul ah wóorul lu amul nag du am tur bismillahi rahmaani rahim xul waxal yow sayduna muhammad maa ngi muslu ak a làqu bi rabbil falaq yàlla mi borom maa ngi làqu ci moom min sarri ma ci ay lépp loo xam ne xalaqa bind na ko moom yàlla wa min sarri gaasiqin ci ay ak ay lépp loo xam ne aji tabbi si la bu ma rax ki demee ba jublu si wa min sarri nafasaati ci ay bépp taflikat bépp njabarkat bu jigéen di tafli ci la muy njabar fi lon ko di ci pas-pas yi bépp njabarkat daal bépp fas-faskat daal yàlla na mu musal ci ayam wa min sarri xaasidin teg ay bépp aji iñaan ida xasa ndegam dem na ba ñemee feeñal añaan gi kooku it yàlla nañ ci yàlla musal te yahudi loolu moo leen daloon ci sayyidina muhammad aha la Ibnu Sirin waxoon rek ñaari tax nee na man du ma iñaane nit ndax nit moom nit ñi fa ñuy teeri ñaari place dong la am aljana mbaa sawara su ma ko iñaanee mu dem aljana iñaan gi jëru ko ma ko iñaanee mu dem sawara iñaan gi jëru ko kon jëru ma fi iñaane kenn naasee ngoog ñoo bokk lu ñuy wax xul waxal aawuzu maa ngi muslu bi rabbi naasi ci yàlla mi borom nit ñi fii ñetti tur yàlla fi indi ni ñu tegloo nag ndax mbir ma mi muslu moo gën garaaw mee bi rabbi mooy borom gone yi moo leen di yar ñuy tegew fa ñuy tegew maliki naas yàlla mi nga xam ne mooy buuru nit ñi waaye maliki naas yàlla mi nga xam ne mooy buuru waxambaane yi ku def naka noonu mu jël yar caw la comme c'est détail ilaahi naas yàlla mi yàllay mag ñi yàllay nit ñi mag ah lu wala fi ah mag yàgg na ak yàlla de du yàlla waaye yàgg na ak yàlla kon xam na lu bëri ci yàlla moo tax ilaahi naas lépp yàlla ciy jëflanteeg lan ngay muslu mi ne ci ay aj jax-jaxal joo xam ne day jax-jaxalaate alxannaas koo xam ne làq waa koon la ci xol wala soo tuddee yàlla rek mu làq te muy iblis allazi ka nga xam ne jax-jaxalkat ba nga xam ne yu waswisu dafa jax-jaxal fii suduuri naas ci dënd nit ñi minal jinnati laala moom jinne la buy jax-jaxal nit ñi yàlla nag ma ci musal wa naasi ak nit kuy jax-jaxal nit ñi di taxaw taxawaayu seytaane yàlla nag ma musal waa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin santati yàlla bu baax a baax parafitoo nañ ko nag di jégaluwaat mbokk yëpp bépp njuumte boo xam ne def nañ ko rek di ñaan yàlla sunu borom subhanahu wa taala yàlla nañu ko yàlla jégal ndax léeg-léeg njëkkalante gi ak waxtu wi moo tax yenn njuumte yi di ñu dal di ñaan yàlla itam mu may ñu fekk ko déwén yu bëree bëri déwén gu ñëw dàq morom ma suy dem moom koor gii yàlla nañu fi bàyyi suy delsiwaat yàlla nañu fi fekk lépp ñu doon yóotu ci alquran yii daal yàlla ñu ko yàlla jotale luñ ci doon daw itam yàlla nañu ko yàlla sorile di gërëmaan mbokki daara ji yëpp di gërëmaa sëriñ ndaw bu baax a baax nga xam ne mooy suñu sëriñ fii ak Cheikh Ibrahima Fall ma la nga xam ne ma nga ca bu tabaarakallah buñ mënee wax benn baat ci alquran ba sañ taxaw di ko wax tabaarakallahu mooma kon moom itam ñu ngi koy santaat bu baax a baax di ko gërëmaat ñaan yàlla guddal fanam dolli ko ko sutura tabaarakallaahu ba lépp luñ jàngee ci moom ak ku mus di jàngee ci moom yàlla yàlla barkeel la nga jàng ñi doon déglu itam yàlla yàlla barkeelal ñu doon lu ñu ci xam yàlla buñ ko fàtte bu buñ ko xamee yàlla nañ ko barkeel su barkeelee yàlla nañ ko jëfee su jëfee yàlla nañ ko nangu ci daraje Seydina Muhammad di gërëmaat itam imaamu jàkka ji di imaam Moustapha Sow tabaarakallaahu ak naibam yi mu ko seq ak yëpp ak maamum yi mu ko seq ak yëpp ak kilifay jàkka ji yëpp daal ñu ngi leen di santaat bu baax a baax di leen gërëmaat ndax ku commencé bàqara ba fii wax dëgg yàlla amutoo la wax ndax li nga war a wax yëpp wax nga ko foofu kon da du mënul ñàkk rek ñu jottali kàddu yu ngërëm ak sant rek di wax ne daal alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu waaw